dafa am bés ay gan yu jógee fale ca Saxara ñëw ñu ngi ñu fekk Kaolack ñu ni ñoom duñu topp ci ilimaan bu nga xam ni dafay wat sikkimam nii <laughs> daal ma ni kon de du topp ci sunu gannaaw de dul ñëpp danoo wat sikkim loolu kenn mësu ko gis rekk indil ñu fitna ba nga xam ne dañu doon xareeg ñoom mujj na sax ma xas sikkam yëpp te waruma wax dëgg yàlla waaw ndax dem naa ci ba di leen wax baytu ba rus naa sax waxati baytu ba ndax ka ko wax dafa soxor waaw wa kullu mriin ذي لحية عذولية يقوم عليها ظن أن له فضلا وما الفضل في طول السبال وعرضها إذا الله لم يجعل لصاحبها عقلا ديك افير بو موجنا بلوخ بو ني ني دنج كاي ديف جيات والله ولوم لو دو ريك كومانا سيركل ووما نيت ديف بوغون ما اند اك الله جسمان كان اك سيرين منيرو مانيكو اي تي نكلا نيو فك كو تي بيرو ñetti chaise a ngi nii chaise bi mu toog a ngi nii mu daldi jóg ci chaise bi mu toog dem toog nale sëriñ Muniru ak alaaj aji Ousmane Kan seq ko ñoom ñett mu ni ma nag yow yaay juge de paix bi toogal ci sama force <laughs> ma toog mu ni ma atteel ma affaire bi parce que c'est grave atteel ma ko man manuma ko atte ma wax ko bayte di ko borom bayti bi dafa wax ni bari na ku sippi moom du gudd te gàtt xel a tax mu wàcc ko mu gudd ma wax ko ko dafa ree ba bëgg dee